ak quoi APIX ñu wax ñu parce que fu mu nekk nii famille ñoo ngay tabax sa arrêté la ngay banque yi ñu banque du fay nga war ko def sa ko ci nga def vraiment loolu ñun APIX ñu tooñee ñu ñu rek vraiment tooñ gi metti na léegi li comme le président de la république mooy chef suprême na taxaw diligente ce problème là parce que metti bépp dit bu daloon dina la metti mais ñun ñuy waat ci bokkutaan lu mu ñu dalee dafa metti yor suñu kër ñu tëj ko ñoo xam ne ñi woon sur le point ñu toxu si ak seen famille ba tey mënuñoo ñëw ñeneen ñi ñu arrêté leen xaalis bi ñu leboon euh, ndax saay na léegi daal dañu bëgg ñu ñëw dédommagé ñu à la hauteur de nos peines ñun peines yi ñu fa def nañ ñoo dédommagé ñu